Baye Cheikh comme ni nga ko waxee dañ koy seeti moom mooy directrice su Albert Royer ñu mhm. tàmm ko lool nag ndax xale yi fa la ñuy fajoo mhm. kooku mooy docteur Issa Tall ñu seetaan ko dellu si waat jërëjëf euh, waa quartier général liggéey bi euh, muy benn sas boo xam ni ma ciy profité di remercier les autorités qui ont eu confiance en nous ba nommé ñu directeur actuellement fi ñu nekk muy son excellence le président Macky Sall mais également monsieur le ministre abla Diouf Sarr mi nga xam moo ñu proposé ba ñu teg ñu fii gisewuñ ko lenn lu dul euh, delloo weccet bi suñu dëkk mi nga xam moo ñu formé dañu fi teg pour euh, ñu gérer hôpital bi nga xam ni moo gën a mag actuellement ci Sénégal ci bu ñuy wax jël en charge xale bi nga xam ne dafa feebar Euh, dañuy faj xale Sénégal yi mais dañuy faj tamit xale yi nga xam ñoo nekk ci sous région bi ñu am mbégte bu rëy parce que suñu dëkk bi jox nañu lépp donc euh, bu ñu joxee occasion bi vraiment mbégte la lépp nag matut waaye ñu ngi jéem suñu kéemtalaay kàttan defuñu lu dul dugg dans une dynamique d'amélioration continue heure bu ñu xëyee rek ñu jéem a teg benn brique euh, gën a baaxal li nga xam ni moo fi nekkoon démb. Albert waaye hôpital la boo xam ni dañ koy wax établissement public de niveau 3. pourquoi parce que le personnel ñi fi nekk personnel bu xareñ la euh, bu jàmbaarlee la bu bëgg xale la loolu mooy première chance Albert Waye ensuite son plateau technique muy matériel bi fi nekk également muy matériel boo xam ne wax dëgg yàlla dañ ci sant yàlla parce que li ci ëpp xale yi bu ñu fi ñëwee waaju yi lu ñu soxla woon dinañ ko am donc euh, muy deux aspects yoo xam ni dafa am solo ci fajum xale ni société bi gisee handicap d'une manière générale Euh, loolu lañuy daj parce que société bi ñu ci ëpp dañuy foog ni euh, ku handicapé rek da nga manqué. da nga manqué te am na si bari ñoo xam ni tamit handicapé daagu seen kër gàcce la si ñoom bëgguñu seen doom takk handicapé euh, pour ñoom handicapé n'est pas présentable pour ñoom handicapé rafetul am na ñu naan handicapé tamit dafay dafay dafay umaate. ki gën nag ci jëkkëru handicapé yi mooy ki nga xam ni moo am diine. Mm. li ciy gën a tee neex mooy ki nga xam ni. non seulement day am diine mais waa këram tamit dañuy dund diine ñooñu ils sont préparés xam nañ ni handicapé bi taamuwul pour nekk handicapé xam nañ ni ñoom tamit bés mën na ñëw loolu dal leen wala ñu wala ñu jur lu ñu mel ñu mel noonu vraiment boo sëyeeg ñoom doo am problème bu xasee ba ñëw nag handicapé bi mooy war a adapté wu nag jàkkaarloog société bi xam kan mooy boppam affirmé wu nag ah dund dundam donc handicapé boobu buñ ko jàppalee tuut am waajur yoo xam ni amuñu kersa ni kii sama doom la accompagner ko wan ni ko bëgg nañ la malgré ni nga mel am proche yoo xam ne wan nañu ko bëgg nañ la malgré ni nga mel ñu tegal ko école muy jàng xiifut marut kooku toog sama place du ko jaax mu ngoog docteur Issa Tall lañ doon déglu moom nag euh, moo jiitee hôpital Albert Royer euh, jigéenu jàmbaar la jigéenu jàmbaar la Baye Cheikh fi mu daanee la sax foofu laay yëkkatee ndax ne na mm-hmm. jigéen fulaak fayda moo koy may moo koy moo koy may boppam mm-hmm. euh, bu dee yow da ngaa ñëw ñu jàpp ni da nga am laago tax boo nekkee ci kër di sëy sax di am yenn jafe-jafe yi waxantuma laak biru yi ngay liggéeyee yow nga jàpp sa fula jàpp sa fayda ba am li nga xamante ni moom nga bëgg te kenn du la yem docteur Issa mën a wax ci moom am na bëri na neurologue la moom ci boppam di manager euh, bi nga xamante ni moo yore structure santé yi directrice générale mhm. Albert Royer la Albert Royer nag euh, lu tolloog 300 mhm. xale dinañ fay ñëw te duñu mhm. jël rendez-vous euh, mu nekk ay consultation yoo xamante ni dinañ koy defal ndax nit ñi fa nekk médecins yi ñu xarañ lañu waaye tam matériel bi adapté wu niveau trois la kon nag Albert Royer xale yi taamu nañ ko ndax dégg à chaque fois da ngay dégg ci biir kër yi mu fekk xale bu am lu lay metti sax fa lañ lay fa lañ lay yóbbu loo xamante ne lu am solo la lii gën a indi handicap nag buñ ko nattee foofu noonu toll na ci polio muy feebar boobu nga xamante ne nii bëri na uh, torop waaye mm-hmm. tamit nee nañ liñ fay ràññee lu gën a bëri ci ay feebar mooy xale yoo xam ne dañuy yéex a dox xale yoo xamante ne également duñu gaaw wax wala ñu am sax ay crise ñoom nag li nga xamante ni moom lañ ñu fa gën a wax mooy bu ñuy ñëw seen yaay la ñuy àndal mm-hmm. gis nañ ñi papa yi daal ñoom à chaque fois dañ leen di bàyyee ak seen yaay loolu tamit bëgg nañu ñu delloo si xel yi uh, te xam ne doom ñaar ñoo ko jur muy ku góor ki ki ak ku jigéen ki mhm. euh, te bu ñu rek di bàyyi doom yi nga xamante ne dañu am laago ak seen yaay yi parce que yaay yi tamit dafa am yeneen yu leen war looloo tax euh, tey ji mu insister ci bu baax waaye Pape li mu gën a insister daal mooy euh, tey ci weeru koor bi ñaan na jigéen boo xamante ne ni da ngay dund ak laago amal sa fulla amal sa fayda jàngal wutal say lijaasa defal sa ay formation waaye tamit wutal liggéey comme ñëpp toog gérer sa famille gere li nga xamante ne mooy sa liggéey bay Cheikh voilà c'est vrai que nuyoo guñu ajot ay waaye bëggoon naa mu joxe xalaatam ci ci gëstu bi euh, jigéen moom amul euh,